une opposition ça doit s'opposer démocratiquement mm -hmm. un pouvoir ça doit gouverner en respectant euh, l'état de, de droit mais xam nga Sénégal déclic bi c'est 2021 2021 ba tey kenn nekkul ci jàmm mm-hmm. dañ ñu ne woon au début c'est une citoyenne moo porté plainte à un citoyen ça aurait pu se régler euh, dans les instances le, le dossier suivre son cours normal ñu jël dossier bi politiser ko et mieux même avant ñuy politiser dossier bi on nous a dit qu'il y des gens qui ont monté ce dossier là ñu naan menace de mort viol xale bu jigéen bu xamul dara ñu sàkk ko euh, su mu souffrir ñu ñëw le premier juin juge bi nañu ah man xool naa mbir mi bu baax a baax euh, euh, accusation viol bi dama koy disqualifier mm-hmm. accusation euh, menace de mort bi euh, dama ci acquitté euh, ki ñu tuumaal waaye nag dinaa ko condamné parce que jàpp naa ne am na lu mu sekk ak xale bu jigéen boo xam ne euh, amul 21 ans loolu moo njëkkoon accusation plainte ba moo taaloon réew mi 2021 mm-hmm. verdict ba taalaat réew mi le premier et le et le et le et juin. ba ñu yegg ci situation boo xam ne communauté internationale bi yëpp ñu ngi jël seen gët teg ko ci ci ci ci Sénégal. Mm-hmm. est-ce que mën nañu occulter mën nañu wax ci les conséquence Alioune Sané me l'a dit ici et il a raison. Mm-hmm. est-ce que mën nañu wax ci conséquences yi sans pour autant parler des des des causes. pourquoi des gens se sont euh, se sont mis d'accord pour. Euh, accuser un homme de viol. Voilà, la réponse est que il voulait l'écarter. ok xam nga da wax lu loo xam ne man d'accord ma ci te man j'attends à ce que yow jox ma preuve bi mooy quand tu dis que les gens se sont concertés pour accuser quelqu'un qui sont ces gens. non dañ ne. waaw waaw xale bu jigéen bi accusé oui. dossier bi dañ ko monté. et aujourd'hui on ne parle pas de ces gens dañu ne dañu ne nga wax dañu ne man APR laa bokk président Macky Sall mooy suñu président début ba fin bi départ au tout début. affaire bi wax nañ ko presque pendant cinq mois six mois ñun c' était un sujet tabou chez nous cinq mois non non yàgg na. première semaine bi vous êtes retenu ngeen jékki-jékki tayatu leen ko ngeen commencé xaaral parce que après on a commencé à nous accuser accuser nañu nag plusieurs mois avant que même que ñu génn di commencé di expliquer di tegi tuuma yaa ngi dégg donc man li ma jàpp benn sénégalais moo accusé beneen sénégalais nu coow li commencé ak nu mujjee accusé nañ fi ne moom justice amul justice bu installé par euh, pourtant bu ñu demee ba ci fin ba dañu ne viol amul te ban kan moo wax viol amul c'est pas le procureur de l'APR c'est pas le juge de l'APR juge indépendant bu Sénégal moo ko wax donc man jàpp naa ne ni dossier bi mujjee moom moo waroon nekk ni dossier bi commencé ñu bàyyi justice daf liggéeyam loolu su nga defoon benn problème du am benn coow du am tey su fekkee dañuy bëgg wax mooy kan moo fi xëy rek ñu accuser la nga def publication ne man xawma Sweet Beauté musuma dem Sweet Beauté teguma fa sama tànk li ñu may accusé xaw ma ko nga jékki-jékki supprimer publication bi c'est une réalité qui est soo bëggee ñu duggaat si mais man j'ai même pas envie ma duggaat si loolu parce que dafa passé loolu acte la bu fi ah. amoon non acte la bu fi amoon nga xëy suba teel supprimer sa publication taxaw def conférence de presse ne président Macky moom moomu complot ñuy dem ba ci fin bi état bi wala na leen vraiment man xaw ma juge xamaa nu ma juge la preuve juge dafa ne man sama yoon ci mais Ousmane Sonko est un habitué de faits parce que amoon na beneen dossier bu fi am entre boo xam ne li nga wax ci dossier bële tey li ci xaw a sax lëndëmul ci dossier bi muy le cas de Mame Mbaye Niang sénégalais bu accusé beneen sénégalais lambda mu dem porter plainte normalement foofu amul complot parce que flagrant délit de mensonge la woon ñëpp lañ ko fekk. waxul ne non li ñu may wax la wax li ñu may wax moo ko wax parce que da ko def yéen ngeen taal ko micro ñëpp gis ko loolu la na caméra am na vidéo am na lépp lépp feeñ mais pourtant cette même personne a eu ce même comportement ba loolu moo taxoon tey fii ñu doon def ay manifestations du ñàkk foofu sax amoon na ay quelques problèmes fa amoon ba ñu yàq fa ay liggéey ay ay mbiru jàmbur donc cette personne qui est comme ça luñ ko yëkkati mu ne non non non dañ ma complot luñ yëkkati mu ne non dañ ma bëgg a yàq luñ yëkkati kooku su waxee ne dañ ko complot ci beneen dossier. mais mais xam nga man mënu ma ci d' accord ak moom. xam nga yaa ngi dégg non xaaral may mën rek man mënu ma ci d' accord ak xam ne dafay am ay propre devoir di utiliser sa posture politique pour jaxase xelu sénégalais yi pour gëmloo sénégalais yi ne c'est parce que man damaa bëgg jàkkaarloo ak président moo président bëgg ma yàqal man loolu laa jàpp. xam nga te loolu c'est injuste. xam nga amu ci droit amu ci devoir. te mu ngi créer benn précédent dangereux parce que man tey ma jox exemple tey maa ngi nii nekk dans dans le pouvoir di liggéey maa ngi liggéey maa ngi def gestion publique maa ngi manipuler de l'argent public demain. il peut y avoir effectivement un rapport qui peut m'épingler ñaanu ma ko yàlla et jàpp naa ne du am d'ailleurs parce que man je sais comment je comporte avec l'argent public mais tey ñu may jox arme yoo xam ne demain su ma nekkee dans l'opposition su ma amee problème ak justice ba pare nekk acteur politique ma mun a taxaw tamit sama kër gi du ma wuy ci mun a taxaw woo samay ñooñ waa Guinguéné wala dara ne leen taxaw leen ngeen barricade fii ñu xeex on est en train aujourd'hui de me donner yoo xam ne mun naa ko utiliser dans le cadre par exemple d'un projet politique bu may am te c'est pas bien c'est dangereux ñun la ñuy combattre loolu la ñuy xeex